Après la région de Kolda, l'équipe Kifni TV continue sa tournée vers le village de Balmadou, qui se trouve dans la commune de Goudam en Casamas. Pour aller vers ce village, il faut traverser avec une pirogue conduite par M. Adama Keïta, piroguier assurant la ligne Goudam-Balmadou. voilà ñu ngi nii fii ci Goudomp fii ci géeju Goudomp bi pour préparer euh, traverser pour dem village bi ñu naan Balmar léegi ñëpp ngi préparer nii pour préparer dem foofu léegi nag village Balmar du foofu la góor gi awoon pour dem euh, bu mu dee dindi euh, fii nii ci géej bi géej bi mu doon daaneel. gaal yoo xamante ne chaque semaine presque ñu ne am na gaal yoo xamante ne ñuy dee ñun ñuy dee fekk am na junni boo xamante ne moo fi nekkoo di rey fii ci village léegi góor gi bu fi jaaree nag góor gi moom moo leen dund si boobu moom moo rey jind boobu mais incha allah bi ñuy demee ba foofu si village bi dinañ leen wax góor gi wan leen tamit góor gi fan la ko la ko def jind ba jinne bi rey ko keroog dégg nañ bëri foofu noonu si village bi góor gi bu mu leen nee di ngeen am tëj ba nit ñi ñëpp dañoo waar woon ba ñëpp toog

wax géej baa ngi nii géej bu góor gi yéegoon ak ay saxaabaam mooy les compagnons de El Hadj Mouhamadou pour dem Balmadou pour defoon fa benn gàmmu nii moo ngi nii voilà géeju ndox baa ngi nii di dem voilà gis ngeen ndox mi. ñu ngi dem Balmadou fii mooy bi nga xam ne fii la El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom jaaroon ñu jaaree ak El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom traversé géej gi bi mu jëmee nag ba traversé géej gi nag si la jékki ay jinne ay jinne dogaale mhm. ko dogaalee nag si la yëkkatee yetam après joxoñ leen ko nii ñu leen ko joxee si la reyee jinne bu mag bi yeneen jinne yi dañoo daw mhm. mu ne jinne yi dañoo ñëwoon pour pour pour gaañ mhm. mais jinne seen jinne bu mag bi dee na mais si des moom daw na mais ba mu yeggee sa tëkk ba da leen expliqué mu ne actuellement jinne yi am nañ dëkk rëy waa dëkk ba nee ba bañ nekk toogee ba guddi si leen dégg ay yuuxu si yoo xam ne kenn xamul fan ne si dëkk bi mhm. te boobu fekk expliqué ne nee jinne bi daan këpp seen gaal bi kooku rey naa waaw loolu na téemaan la pour doy waar moom moom la defoon fii si euh, bumbu daal moo tax ñu ñëw fi tey pour jaar nii dem gis jaar jaar ñu mujj Moustapha Ngom waaw moom mi xam ne yàlla yàlla moo ko dimbali moom yàlla def na lu bare si Sénégal. borom leer la de. Ah, Sénégal moom wax dëgg yàlla amul lu mu def si Sénégal. loolu moom dañoo wanewul ay affaire am rek. Hmm. ko wane woon ñu xam ko. Hmm. Hmm. waaye nag ñun dinañu lépp mu jaaroon ba def ko kéemaan. dinañ ko jaar wan ko nit ñi xam ne moom. waxuma la bokk la gaay yi si gaay yi gaay yi lépp ñu def def na. mooy njëriñu kif mooy Kifne TV. Kifne TV lool mooy njariñam boo xam ne ni pour Sénégal yëpp. Mm-hmm. waaw ñu ñaan daal yàlla jàppale ñu. Mm-hmm. amiin yàlla matale ñu ko. amiin ci jàmm. amiin Kifne moo jóg pour initiative mu jaaroon daal dina fa jaar. Mm-hmm. wane ay kii yëpp ko defee nit ñi dañuy xam mu nekk nii direct kumbu daal la ñu jël. parce que samay gars manteau yoo xam ne pour ndox bi gaal gi bu yëngu ñu mën ci sauvé ñu ñu ñëpp solo nañ allah ñu dem ñu foofu xool jaar jaar yi parce que yàlla xam naa léegi ñu yegg hmm. waaw ñu sant yàlla si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent daal moo ko ñu waa ji boo ko xam ne yonent bi jaral na lu nekk am nga ku géej tex bu tol nii nga traversé ko ànd nit ba pare loxo dara dérangé wu la nga dem ba foofu màggal ba Seydina Muhammad dafay ñu la xaalis joxuñu la addiya joxuñu la dara te yaa ko def volontairement ak sa xaalis bopp nga ne kon yonent bi jaral na ko du ne mm-hmm. waaw moom dafa wane yonent bi du ne moo taxaw ñu mu nekk nii moom moo wane ne lu ne si yonent bi ñu wan ne nit ñi am leen koo xam ne nii wax dëgg yàlla boo leen ko mm-hmm. yu bari dina jeex parce que moom jëriñu woon Sénégal la woon dafa ñëwoon pour Sénégal kese. wallaahi. dafa ñëwoon pour xettali nit ñi dafa ñëwoon pour nit ñi jàppale bi ñu nekkoon ñu dindi leen. waaw hmm. ah, malgré sénégalais ñu bari xamuñu ko parce que dañ leen ko nëb waaye ah, ñun nag dinañ leen ko leeral xam na wax dëgg yàlla naxul kenn. wallaahi waaw ah, wane na lépp lépp la wan waaw lépp loo xam ne nii jëriñu nit la bare na ko. waaw ñun ñu ngi traversé di dem nag yàlla yàlla càmm ñu yegg ci càmm. sallallahu alaihi wasallam I'm Palmatou egsi nañ gaat gi teer na dañuy dem euh, ànd ak euh, gars pour ñu dem dugg si biir Palmatou ñu wan leen góor gi fan la ba jot euh, ba ba ak bi ba mu nañ dem Thank you. ba tey ñu lay euh, Kifne TV tamit di ànd ak yéen di leen wan fi nga xam ne moom la góor gi déparé woon tey euh, boo gisee boobu mu ngi yor yat bi euh, bu ñu gaal bi noonu yor yat bi booy seet jinne yi ñu ngi fële woon côté bii waaw bii ma leen di wan nii la la la jinne bi fële bi mu fëlee fii góor gi gis ko rek après jël kii bi jël yat bi bu jëlee yat bi boobu mu ngi koy suivre nii rek di def nii comme niñ ko doon gisee foofu waaw muy def nii jinne bi di ko topp nii diko dox fek mo ngi génne ci côté bi comme niñu ko bajaan expliquer mo ngi génne ci côté bi léegi di ñëw ni euh, goor gi goor gi top, ko ak yatam ko top ak yatam diko top diko top ñu ko topé ba ci fi rek ñu gis ci tamit xar ñaar mo xaré ñaar daati euh, bi aw fi bi aw fi xam nga après ñom bi doxé ba ci digg bi ci la goor euh, avant ñuy continuer tamit goor gi mu ngi téye yatt bi rek di sét ndax dina am bu gennat wala du am motax nga gis mu dom def ni loxo bi Euh, di def ni yat bi di def ni yat bi di def ni yat bi di raxas euh, di raxas yoon bi gaa yi topp ci ginnaaw muy raxas yoon bi nii la ko doon def di raxas yoon bi di raxas yoon bi ba ñu demee nag ba yegg ci dëkk bi bañ yegg bañ demee ba euh, yegg ci dëkk bi li gën a li gën a firndeel loolu waa dëkk bi ñoom ñoo ko wax na ko fii géej gi dafa amoon jinne boo xam ne nii da doon def chaque année mu daaneel mu daaneel mu daaneel mu daaneel kii bi mu daaneel mu daaneel gaal yi te dina ci rey ay góor gi ne leen ne jinne boobu rey na sa guddi ga ñoom si lañ commencé dégg ay yuuxu di ay yuuxu yoo xam ne ñoom xamuñu fan lañu jóge góor gi mën a leen yuuxu yooyu génn doom dégg loolu day wane ne euh, jinne bu fa mu dëkk euh, ña fa nekk nekk ay mbokkam ñoom ñoo nekkoon noonu di ko jooy waaw kon dëkk baa ngi nii ñu koy wax Balmoudou waaw kon ñu ñu ñu euh, Kifne TV ak yéen ngeen jàllaat ñu ñu jàllaat ci biir waaw gën a gën a càmbar mbir yi incha allah lépp dinañ leen ko wan en direct ngeen koy gis waaw. Vers les années 90, le homme Homme l'âge Moustapha Ngom a été invité par le feu Landin Kaita, qui était un grand imam dans toute la région de Sidjou et estimé par les autorités de l'époque grâce à sa droiture et son savoir. Le transport fluvial Goudam palmadou faisait chaque année des dizaines de morts. Il y avait un puissant djinn dans le fleuve qui faisait tomber les progues jusqu'à un jour. L'arrivée d'un saint homme, et Momo de Fangom et ses compagnons, qui est venu et a tué le sorcier djinn. Suivons l'interview de la télévision Kifni TV et les témoignages des villageois sur cette fameux miracle. Allahumma salli wa salli ala sayyidina wa مولانا maulana Muhammad sallallahu alaihi وسلم ini mati ya kita kita yang kita semua sama baru kontan loolu ni ngeen ñëw fii min gën kontaan parce que mamadou gombina jaw waato min ne ba ñu alhamdulillah wayen to do tare man sembo soto baake tambo de ni ale ale waya mm-hmm. tare ñini men belori e mawulu mm-hmm. nin wo mamadou komo komo naata tare je wol naata lon faama nin do lel non tambire satere ka fuje balmadu ñooñu doomu ñu fii hmm. ba ñëw fii sant nañu yàlla koto ŋaalon ko ñin diŋnu lafitale ilawo alfaani mini tambita mooya la lafitale fana na yo moorje i nise dunno mooya kono ñaami ñun ñu ngi bàyyi fu moom ñu ngi bàyyi fu moom da ñëw fii pour ñu mën a yëkkat affaire bi bu hmm. ni atar abe ñin saate no kono biitiloo man su nekkee dëkk bi bi ci biir. ñëpp nii bee kañante wotol bii. man moo ko moom. nee jee a kontaanoo wartambul. ngeen gisee fa kontaanee. a sewo wartambul. oto inchallah kumo ɓe alfaala ɓuri ñaata ɗomodi oh. merci merci mm. jërëjëf kontaan nañ ñoo leen gën kontaan bu baax euh, ni ngeen di wax tamit kontaan nañ ci bu baax kon saa yuñ fi ñëwee rek am nañ ci place macha allah kontaan waa kontaan nañ ba tey ñoo ngi si TV egg si nañ Balmadou waa village bi euh, teeru nañ ñu teeru bi gën a am solo euh, ñu ngi toog ak chef de village bu Balmadou te mi ngi tudd Malamine Keita te moom moo doon chef de village actuel toll nii

ala na jang nin ditema anata jang nga muta nga bunya ay kamo ke ngin sate kono jang ne duwa ki jang zike bar min ni min be yake bi bi wolte kene tolle ma ko kon tolle ka tara kol be kunna woni bi tama metara bare wotte bal min be bi kere ngir be na mama fu min lanin ke da wata kere man tara balone ne alkalo mi ganno solo ketawol be bantale wala min ketawol be bantale ni wolle tata kuwol be kunna ba jamu sañol ni wolle be tata kuwol kunna ña kadu e, ba jamu sawo mantade bare ñim famal mo walla ni keda wotata fo e, tinkeji a ah, ni musu jama tata fo tinkeji nte bota e dakar e kini ben tali naata e kana kamola je ti ñanta je mais laaje wuraro nteeda e kini bena tali hmm. bari ay mbuñaje baake Mm. ay buñaje mon ko moy mol buñale bal modu janga mangi na ko ngami kay mm. kan dul man fenke be duwa ni non la mm-hmm. kay duwa ni put na sate ngira na ani min ye nyolo na na jando kay duwa ni mm-hmm. nga dara ku don pule eh, kamo ki je nga bon na bon na ku don bon na anata jang mm-hmm. ne kamo ki jang man ke dira metal kan ngala tentama da fa dingula ngala tentama ni ya yal biya buna fu da karana da jang kana fu lara bal madu dul jambe de wonde na mbedde wondinne alnarañi silamina te kana bonan mbaɗo kana suwa kono jang ka jega mbeɓatade mbaka mine mum talla siwol yoni mbiɗem ki tefes yoni mbi bafol mono ki moom mooy suma affaire bi première bi mm-hmm. mooy sa affaire njëkk bi mooy euh, pour gouvernement bi mën la see jàppale ci yoon bi ñu defal leen foofu benn genre waaw ah, waaw pour ñu defal ki yoon bi dem ci géej si géej bi waaw mu dem ba bi mm-hmm. loolu la ñaan bi si kuddee bi moom loolu la ñaan mm-hmm. pour yàlla ñu dimbali mm-hmm. pour yoonu bi ñëpp indi ko incha allah yoon yoonu boobu boo yàlla dimbali ah naa ko sant yàlla incha allah boo yow attan naaj ko da nga dimbal ko dinaa baax ci man incha allah ci dëkk bi yëpp ci xale bi bi yëpp dina koy waxee ma du sant naa yàlla Tëngéej. incha allah wax kii waa mm-hmm. bi yaakaar na bari bu yàlla dimbali yëpp dinaa dem eh, Tëngéej. incha allah mm-hmm. mm-hmm. allah ci yoon bii. yàlla yàlla ñu musal lu mu ñaan fii yàlla yàlla ñaw. lu mu ñëw fii pour lu mu bëgg tamit waxtaan fii yëpp. yàlla yàlla naw. amiin loolu la ñaan yàlla. yow ñëw fii yëpp. nga am kudd fan. amiin yal nga amul wer amiin ñu maas yi ba nekk ci addunaa yëpp yàlla nga ñu loolu la ñaan yàlla amiin man kontaan suma xol sedd na bu baax a baax suma ma ki ñu ngi ni bari suma xol ma boo ñëw ki pour ñëw fi ma nekk fii mhm. affaire bi man maa fa waa waa kii gouvernement kii mhm. pour ñëw fi pour affaire man laa ko te waxtaan nag nii nii nii laa a incha allah ah, moom nag boo yëg nag dama la moom incha allah sant naa mu ngi leen nuyu ci yëpp ci délégation yëpp ñëw fi mu ngi leen nuyu bu baax mu ngi leen sant bu baax ma ne kontaan na ñu wax waa koom kontaan na dëkk bii pour yoon bii ñu dimbale incha allah dëkk bi am na jafe-jafe amu na fii hôpital amul fi hôpital hôpital amul fi amul fi amul bunaa fi amul amul hôpital amul dispensaire amul mm-hmm. na école am na école mm-hmm. ba école bi tey bi ñaari classe rek la bi tey amul bu leen amul mm-hmm. kii defal kii clientèle rek defal kii clientèle rek. waaw la abri waaw waaw euh, euh, hmm. amul. amagul tabaxuñ ko tabaxul tabaxul ba tey wax naa ci gouvernement bi ba tey amul. incha allah amul na fukkaate ba tey amul. Hmm. jërëjëf bii. Hmm. pour ñu dimbali. incha allah waaw dimbal bu baax. incha allah waaw boo demee ci waxtaan ki waa ko ngi ci nii. yëpp ñu jàpp ma dimbal ci affaire bi. incha allah waaw dëkk bi yëpp mu ngi ci sa kanam. allah. war mu waxal ci waa koom ak yow li ñu fii mhm. yëpp mu ngi lay sant bu baax incha allah man kontaan na jërëjëf jërëjëf bëggoon naa xam tamit euh, village bi kañ lañ ko sanc <laughs> ban année lañ ko sanc wala boobu yàgg na yaakaar naa mhm. mhm. waaw allol garaawul nañ ñu ko jéggal waaw incha fii

macha allah léegi euh, mooy ma bëggoon laaj principal bi mooy euh, Mamadou Ngom bu mu ñëwee fii dama bëggoon nga raconté ma histoire bi. Oh. histoire Mamadou Ngom de bu mu euh, ak gàmm bu mu fi defoon lan la la doon teg si yoon ci islam. Mhm. boo ñëwee fii man man maa jël kaar fii ku dëmb. ku dëmb ji joolaa ko ndale waay. mën mhm. naa ci. ki bàyyi kii lan muy teel kii lan muy teel kii du mooy doomam nga amal teel waaw mën naa moomu la ànda ah mën naa ci moom la ci ak ci dandang teel pour ñu dem teel Joolakunda ñu ñëw fii ñu ñëw fii ñu waxtaan mu ne ko bi ba yàlla dimbali boo ñëw ci joola pudomb mm-hmm. danaa ñëw fii dañ dafa fii xamu mm-hmm. ñëw na fii waxtaan bu mu war a ñaane ci moom ñaan na ko yëpp mhm. mu delloo de fii sa kaw fii loolu mhm. fii mhm. ñu ñaan foofu mu ne ko bu yàlla mu ci dëkk bi dinaa dem kanam loolu la wax lu mu wax yëpp sant naa yàlla moom kamoo jot na dem na foofu tëngi tëngi bari ci bàyyam dem na ak ci yaayam ci ak ci benn ak ci beneen jigéen war a dem foofu ñu ñu mu tàmbali ak téléphone bi si la mu ne mm-hmm. mm-hmm. ko mm-hmm. bala di ñëw na fi Ndiaye. ci Tamba. ndax man ci ci suñu benn taal ba dina foofu ñu ñëw pour a ci bàyyi bu bari macha allah koor yi bëriwul. moom bàyyi mooy di koor foofu. man def ko ñu ñaani foofu. keroog sax man keroog sax man ma ma kaañ. soññ na ma fi Mbour. ah Mbour sax man ko foofu. ba léegi ñu boo demoon boo demoon Dakar dinaa dem Cëram mhm. xam nga Cëram ba léegi nag dinaa fàtte foofu mhm. léegi du mun dem foofu bari Cëram mi ñu def kii kamoo fii mhm. mu lu ma fii ah kontaan moo wax na ko mu ne ko keneen bi amoon na ki moo wax soose benn waa ji moo wax soose moom mooy mu ci wax olof mu ne jàpp naa dëkk bii danaa ñaan dëkk bii kon moom mu lay dem jële ko indi ko fii moomu kontaan ci kamoo fale def naa ko bi si fi kamoo fii ci ba fii nit yëpp la ñu fii nit lu mu ñëw fii bari na ñëpp la ñu kontaan moom lislaam ak ñeen ñi jàpp jàppante yëpp la moom la wax naa ci mu nekk ñu jàpp yàlla ku bay yàlla rek doomu kat lislaam mu wax naa ci ci boo dem ci ngeen si loolu lay wax bu dem si loolu lay wax wax na ci ci bàyyam kii Landing Keita Landing Keita mu ne ko ki boo jàpp fii lu mu lu ma fii bu yàlla di boo jàpp ëllëg hmm. yëpp dinaa ko yëpp ko ji hmm. boo sant naa boobu yëpp te moom ma ngi toog foofu cero hmm. man maa ko yóbbu fële fii kaala mu yóbbu ba fa Joolaa Funda ñu ñëw fanaan foofu ñu ñibbi Dakar ñëw ñëw na buumu daa balaa kaa ñëw na buumu daa man maa dem foofu buumu daa ñu fëje foofu buumu daa yëpp affaire ñaani ji la bi pour yàlla rek. Mm. yàlla rek la jàpp yàlla rek la ñuy wax yàlla rek ñu ngi jàpp nit ñi ngay jàpp yàlla. te mm. loolu tax lu tax fu ñu ñëw fii ma ne kontaan na. Mm. ma ne comme jàpp naa ci dëkk bi. dëkk bari na fii. wala mu nekk Balmadi. boo boo xamuloo fii. boo ci yow du ñëw fi. am na bu ma bu kaañu ba léegi. ah kenn ñëwuloo fii loolu moom mu ngi ne. xamuloo ko kii doomu a mun a xamuloo ko ku lekk a tey a gis si Dakar naa ko gis gisante ma keeta a ngoom ngoom keeta ah, mm-hmm. ah danaa ko xamante dinaa ko dugg danaa ko affaire bi dinaa continuer macha allah mm-hmm. loolu nag man ba fii sant naa yàlla baax mm-hmm. sant naa yàlla baax lu mu def nii baax na kontaan na ci dëkk bi yëpp waaw ba lu a wax kii dëkk bi yëpp ah moom suma affaire la ci dëkk bi macha waaw ci yoonu bii ak école bi ak hôpital bi waaw boo dimbal ci moom dinaa baax incha allah waaw ma ne mun loolu dara bari yàlla mun na dara mun na dara waaw dañ la ta dinaa wax waxtaan ak moom yëpp ngi dimbal ma incha allah waaw pour ngi dimbal ci noonu mm-hmm. waaw histoire bi bu mu doon jugee Goudomp di ñëw Balma bi nu mu demee woon histoire boobu dëgg ah Wala ah. munti. Dala ni tege si dala. Dali ye si personne wala cinq personnes. Wala kasiya. Ne mota kuro mamba isa omina. Après ah. jara kuro mu jara fera kuma ya. Yo biri na bi dana sa te mon na te dani wala. Ne ka be sans problème tu ye tout le monde. accident dɔ bi yɛ an ah, yɛrɛ ti ti yɔrɔ ka ji n'o le tɛ b'a yɛrɛ ka fara di maa kan o b'a ka fɛn ɲɔgɔn ma ani bɛɛ ta n'a yɛrɛ dɔ kɔ o da ɲɔgɔn ma fo tɛntɛn la fo ne jɛn fɛn kɔ don a bɛ ko a partir de bi ni n bɔtɔ jan mafata kiran bala ba fa mara ba adu adu na da ma ko da da mutu ja ani ni nan tema ma sai tani lulu wala sai tani lulu kuma ma ban ma du kulu non man problème o su tende jalfel kulum te jar kulum funa nan man problème o su so a tayi ka wala ya tentu tuwala so sababu wala tunan ya bonnan gudan ñaari jël naa ñoom. bira la gamoo siita moo tax la fay fekk chaque année gaal bi am moom da bi ñu jógee fii mu ne ma gaal bi su ma jógee fii yal na yàlla mu ne fii wax ma leen parce que lu néew da ci yàlla la mu ne déterminé bu daal fii suñu gaal bi chaque année chaque année te gaal bi daal te rek six personnes six personnes moo dee foofu wala sept personnes wala huit personnes. Mm-hmm. waaw waaw moom mu jógee fii ba léegi. Mm-hmm. daal daal daaloon ba léegi. ñu moo def ngeen ba fii. Mm-hmm. alhamdulilah rabbil alamin ñu dégg ah, nañ loolu. voilà léegi yéen tey est-ce que bëggeen ngeen bëgg ngeen encore tey xayraat boobu noonu dalaa ilul xayraat ñëwaat di gàmm si biir dëkk bi. waaw mhm. waaw comme li mu ñaan fii moom gis naa mhm. dëkk bii la bi yëpp dëkk naa ko mhm. xale bi yëpp bi dëkk bi yëpp gis naa ko mu wax léegi-léegi moom mën ko doomam ñëw na fii jigéen bi mu ne ko bi pour ñu ñëw jigéen ko wax comme ko eh, yoon bi dafa tàng comme dégg dinaa ko delloo ba yàlla dimbali yëpp dinaa ko waxtaan boo fu boo demee dinaa waxtaan jigéen bi fii dëkk bi yëpp doomam mën ko mu fii télé laaj na ma mu ne ko ma ne ko lu mu def fii lu mu def fii paalal nañ ceeta lu mu wax ci moomu pour dëkk bi tam taal bi ñu suuf tuuti ñu suuf ma ma ne ko mu ngi waxtaan ak ci moom mu ne ko dina lu yàlla dimbali ma ne mënuloo dara bari yàlla mën na dara mhm. kaale pour nga suufee du am moom yàq nag boo jëkkee fii bii lekk kaali suufu suuf bii. kenn mu gën da pour nga nga sonn ci géej gi. man defuloo ko. léegi est-ce que bëgg ngeen ñu defaat fi gàmm fii. waaw. Mm-hmm. waaw mun naa ko dinaa ko def boo paree. Mm-hmm. boo woo ma mu ne ko si lekk nag eh, kii doo ma wax naa ko mu ne ko yow wax naa ko mu ne ko lekk na dinaa ñëw fi xama pour Balmadou. Mm-hmm. ah dinaa ko def ah dinaa kontaan léegi biir dina yëpp dinaa kontaan. mun naa waxtaan boo waxtaanee boo bis bu war a ñëw bis bu ñëw war a nekk nii dinaa ñëw foofu. dinaa waxtaan nit bi yëpp. dëkk bi yëpp jikki na koor bi naa ko def wax boo ñëwee ñu defar ñu defar ko ñu ñaani ko ñu dem loolu lay def moom toujours loolu lay def waaw waaw macha allah mun amul dara yàlla rek mooy amul dara mm-hmm. bis bi boo ñëw fii mm-hmm. moom lu mu ne ko jox eh, naa paalan bi mu ne benn naaj dëkk bi côté na xaalis bi ma ne suma loxo dox ma jël beneen nag ñaari nag la ñu réussir mm-hmm. def na ci kamoo bi kamoo nexe na lu mu am foofu yëpp affaire bi njokkoon ak kii laaj nañ cere nga jaww ci mu na bi ci boobu ah ñaari fan la ba sant naa yàlla mu hmm. ñëw fanaan bi ñaari fan la fi defoon waaw macha allah kon dafa ñëwoon si fii fanaan fanaan fii waaw après ëllëg ñu def gàmm waaw ah macha allah gàmm kon gàmm balma du neexoon waaw neex na ah. waaw na bu baax de moom bu baax ñaan hmm. mu ne ko yëpp ngi jàppante léegi est-ce que mën nga ñu wax kan mooy Landing Keita. Landing Keita moom gaañu na. Hmm. waaw mën nga ñu wax kii moom moom kan la woon ba mu daje góor gi. Landing Keita. moom kan mooy Landing Keita. waaw ah, Landing Keita mooy kii kii chef de kii li maamu ci fii Balma bi. Mhm. moo tax tam boobu kii kii la. Mhm. moo tam moo nekk fii ak kilifa ci dëkk bi yëpp. waaw ah, moom moo nekkoon imaam. Ah, Balma bi ah mooy kilifa ci dëkk bi. Mhm, tam boobu kii makamu yëpp gaañu na. moom mu nekk foofu ku boo waxtaan boo waxtaan affaire bi ki kamo fii rek moom la dama ñu waxtaan mu ne ko dinaa ko def nii naa def nii rek ñu def te ki ji yëpp yi ki nekk kon moom lu mu wax rek loolu la def waaw gulumbu waaw moo moo nekk ko nekkoon conseil. waaw mm-hmm. tension ah, ah, ah. waaw macha allah waaw tension waaw macha mm-hmm. allah waaw tension ci Djibou Diallo dem ko ci yëpp moom la ànd moom la ànd ak waaw dam boobu yëpp sant naa ci moom bu baax a baax a moom lu mu dew fi dëkk bii ba lekk bu yàlla moom yàlla jënd ko lekk mu ngi sant yàlla mu ngi sant yàlla mm-hmm. boo jëkkee ci moom boobu kañ la ba léegi kenn demul foofu ci ci Mamadou ci Mamadou Ngom Thiadam man léegi nag ma tey man kontaan naa dëkk bi léegi fàttali naa ci Mamadou Ngom bari tey ñëw naa. Mm. affaire bi dugg na ko. dugg na ah dugg na. dugg na Balma dugg na Balma incha allah. waaw affaire bi ñëpp kontaan. ah ah liggéey baax na. ñu wax ko doom ma ma mën ko moom ma gën a ñëw na. Ah. waaw waaw. ñoom ñoo ñu guddi. askan wi bari na kii si géej yi. waaw. ñi ñoo fi ñi waxtaan ak paa yi. paa yi ñi romb fii mu ne ah ñu ne ba tefes. Mm-hmm. gis naa wa kii uh, gaal boobu nu waaw moom mu ñuy dox ba fii mm-hmm. ba dem ba kii si tefes yi mm-hmm. mun ñaan alal mun ñaan mun ñaan mun ñaan mun yàlla boo baax ñii ñaan ñii ñaan fii kay moom moo dégg fii kay fii la jëm fii gaal yi ñu ñëw gaal ñu ñëw pour pour ñëw fii waaw benn jour maa ngi mu ñu yàgg yàgg yàgg yàgg da ngay da ngay firi ay mu ne euh, gars yi euh, benn femme mu ngi fii. fii sa kër sax. ñu ngi expliqué benn femme mu ngi fii. ñu ne ñu ngi ñu ngi daal ñu ngi gaa boobu mu mhm. mu ngi liggéey fale. mu ne ah suba maa ngi ñëw teg si tendaay. Mhm. mu ne suma tendaay ñu ngi ñëw suma tendaay. ñi ñëw ñi ñi ñi loo quoi. Mhm. ñu ngi taal sa machine kii ñu ngi taal sa machine fii. yàgg hmm. hmm. na boobu boobu yàggul ñu boo léegi. macha allah ba léegi yàggul mi expliqué ma wax la yàgg na fii. macha allah yàgg na si si tefes. si tefes waaw. macha allah kii. de hmm. réewul de. kon sant naa yàlla waaw. sant na yeggal na yeggal loolu moom dëgg la. te bu si la si paa bi bu dem. Hmm. ba léegi fotow fi. wax nga dëgg. si ñëw na encore. fotow hmm. fi. Hmm. ah loolu baax na macha allah dëgg la ah? waaw. macha allah tey sama sëriñ est-ce que mën nga poser say questions. mën nga ko poser say questions. non man man ni ma gisee. kii baax na nu mu expliqué baax na léegi sëñ Moulay mën nga gàmm tuuti. Mhm. nga expliquer leen tuuti si Mamadou Ngom encore si yeneen jàlloore si lislaamam si bëgg yonentam mhm. mhm. ah asalaamaaleykum ah, wa rahmatulah. wa taala ah ñu ngi leen di sant bu baax. nekk kontaan nañ bu baax si ñëw bi ñëw fii waaw ah, parce que parce woon nañ ko. Ah, waaye tey la ko yàlla dogal. xam nga yàlla moom dafa nekk buur boo xam ne lu mu dogal rek si waxtu ba na mu ko bëggee noonu lay amee waaw moo tax tey noonu bi ñuy ñëw dañoo sawaroon ne ñëw yàkkamti ñëw fii bu baax a baax parce que xam nañ ne ñiñ fi fekk ñu baax lañu waaw parce que moom ba muy jamono ba muy ñëw fii ba muy ñëw dafa kontaanoon bu baax parce que dafa xamoon ne ñu baax la fi fekk si ko jamanu min abila jan kontante do alo kay mo biru li fata ni parce que parce que mu ne mu ne ko neex si dëkk bi mu ne dëkk bi dañuy saa bu ñu jullee ba pare rek dañuy julli si yonent bi kon bawaru ni jam mo ni ne te bari na Sénégal ñoo xam ne dañuy julli ba pare duñ julli si yonent bi masal kilama kilama jayge sanne ko ɗum kilama sal kilama waɗa kila mu ne moo tax boo dëgg gisee Casamance yàlla di leen suturaal mu ne li ñuy julli si yonent bi moo bari ko ñaari Casamance mbi suturo ɗo kono ko sama min ko duwaɓe ah, kilama mu ne moo tax yàlla du leen fàtte mu waɗna ah, parce que yàlla yonent bi rek la am waaw yonent bi mooy xolam mooy gis-gisam mooy dégg-déggam mooy léppam waaw moom moom dafa demoon sax bañ defee ne moom Casamance dafay am kër ni ni mu bëggee Casamance Casamance parce que mu ne dafay gis ne sa Casamance saa bu ñu boo waxaata ak ñoom balaa ñuy wax dara rek faw ñu ne nañ julli si yonent bi ba pare mu ne loolu moo taxoon mu gën leen bëgg. waaw te moom yonent bi daf ko bëggoon ba addina bi yëpp moom lañ ko xamee moom yonent bi daaw si amu si woon sago. waaw moom da daan wax nag moom boo bëggee yonent bi yaa ko gënal bopp. kon moom moo ñuy def daal la. waaw moo tax. yu bari da daan si wax si Casamance naan lii dina am lii dina am lii dina am ba si tey yu bari tey gis nañ ko waaw ba si rebelle ba ñuy xeex xeex bi ba mu ne woon di ngeen xeex mais doo leen am ndam ba yomal xiyaam. waaw parce que moom sacrifice waaw parce que maa war hmm. waaw moom da dem si dëkk yi di di expliquer yëpp liy xew si Casamance avant geeru Casamance bi jaaroon na si dëkk yi mu ne leen deret bu bari dina tuur waaye boo leen ko kaafarawul du baax mu ne jamono boobu nag ñu bari gëmmuñu woon lool léegi bi événement bi amee nag su la nit ñi commencé naan Modou Ngom waxoon na ko pourtant sëriñ bi dëkkoon Tëngéej waxoon na deret bu bari dina tuur Casamance hmm. Ah. baya fulmi kujiyar gimar yin dubu da kashi wasu jan da kuma mura fi mata yin fokan ba ka bila keru nuna da de ah ba gine bisawo bañ demee eh, Masoa benn waay mu ne ko léegi da nga bëgg nga ñaanal ñu ne de mu am sens mu réew mi normal du am ay xeex yu mu am président julit boy set bam ko waxe won ba yagge ba legi ren lay soga am president oh. jul ko kamin jirgi apa dar jirgi apa ya dal da kula ya magu kula mu gungi bada ba da ko president ministre ko ro yo bon talaja ko sima ki sima mom ngi tan la ñaar president ah wuti yo tam ah ba si mom sax bi sa googu dekk bi nan ngore amna na bo xamne xam ne buñ ci daan nan dafa neexul woon léegi tamit ci pont bi fa nekkon non ben jinne mo fa daan traverser ah da daan da def comme ni muy gëppe gaal yi fii moom da daan rey nit foofu léegi nag jinne boobu moom moo ko fa rey comme waa dëkk ba ni ngeen seedee fii noonu moo ko waa dëkk bi seedee léegi teen bi nga xam ne nag dañ si daan naan neexul bi mu si ñaanee jël suuf ñaan si def ko ba léegi teen bi dafa neex ba moom lañ ko tuddee teenu Modou Ngo. waaw moom nag dana lu bari la ko daan wax si Sénégal ba tey li xew nii ren si coronavirus waaw wax na ko lu yàgg ay année yu yàgg muy soog a ñëw parce que dafa ne woon balaa bi wàcc na ba bennal asamaan mais day jot ndigal rek yàlla wàcce ko si kaw suuf mune ta bu wacce ñu bari di si ci dé mune bu ñëwé ñaan mënu ci dara jang kaamul mënu ci dara mune déllu ci yalla rek motax mu mëna mo ñu ko na fu ne dellu si yàlla rek moo tax mu mën a arrêté ara ah, ah, ku ñaké ñaaw ñaa duwata bondula ala la ñaa ñaa alala ñaakere alala te sala kiram na ta waxon na tamit gis nga mune li bu passé mune benen dina gëna ñëw bobu ngelaw lay doon mune ngelaw lolou bu ñewé mune ñu bari dinañ ci dé waaw mom yoy yépp waxon nako ko bi ñew na te xam nañ ne ngelaw lu dina ñew ñëw ofunyo mina na kula bimu faru kene kene na mi fudu to banyo e do do lan ko no diga faaru jara do mune parce que mune ah, li tax yalla di def lol mune nit ñi ñoo bañante mune leg nit ñi dañoo bañante kenn bëggul sa morom dem ñaanante bi bari xeexante bi bari liggéeyante bi bari ku nekk loo jekkoo sa morom da nga ko koy def kenn bëggul ko avancé mu ne looloo tax yàlla mer ba wàcce lii warna ala ñi ko fongo ñi tan tan fa kam fa ben yo fala la ben yo fala do mo mo mo ko mo ko mo fa bari ya ko mo te tan mo ta fa dai bari man ñi ya ji da ba fa ba fala comme place la pour kele ah wala mu gel basu kibule no kele ngul ko mu ne loolu tax moo tax mer ba def li tey parce que nit ñi bëggante wuñu léegi wa dañuy liggéeyante kenn bëggul sa morom avancé waaw ah, mu ne bu jamono bu tollee foofu nag yàlla da leen wan ne man mom mom àddina bi léegi ba nga xam ne tubaab yi ñuy amoon doole dañ daan not nit ñi di leen jox alal di leen fàttaloo yàlla léegi tey ñoom ñëpp la not ba ñoom ñëpp a jaaxle ba tey doomu président yek sin yi ñëpp ñu ngi tuub di dugg si lislaam waaw tubaabo kuma ngi mbar ñam kodo bonnen na ka jinda kodo wala ken ci ni wala ken ci ni ngi buñu ba moro ba dele o kiri be gene bur jam foga duwa ko kan ñaati ne ñaati Allah ñaati duwa ko na min be bozen lol lol nak yu bari nak bu li passé nak ñu ngelaw li passé day jant bi mune buja bu jappé jant bi nak mune jant bi day ñew ba ci digg bi mais day yëngu bu yëngoo day dóor rek dem dem saw mune boba nak adina bi mune ay malaika ñoy wacc mune ci si ab lendem bu ñu kuk moy am mune ci si lendem bi da ngay digg mu naan fiw fiw fiw mune fekk dañuy ngad ni yalla mo mer mune bu lendem bi ñetti fan lay am mune bu passé nak mune ñu bari mi ah bukira ni ah, sabalama ah, jamono boobu nag bu ñëwee nag boobu lañ naan jamono di xam nga mahdi nit ñi mag ñi dañ ko daan max mahdi waaw mahdi bu ñëwee nag day rek la nit ñi moom bu ñëwee nag avant muy ñëw mu ne lii mooy a am ba pare mu ne bu ñëwee nag day toppaat nit ñi ànd ak malaayka yi at jinne yi moom ma di rek la waat ni ñi mu ne addina bi lañuy defaat comme comme àjjana mu ne kenn dootul def lu bon kenn dootul yéene lu bon ba pare ñëpp dañuy normal mu ne ji jaamu yàlla yéefar dootul amati jullit rek ay am jul tubaab yeeg chinois yi ñëpp ay nekk jullit mu ne si force mu ne président yi tamit dootuñu nekk ay président moom moo leen di jiite léegi moom mooy doon président du monde addina bi yëpp di ko dégg bu waxee ñëpp koy dégg

waaw mu ne parce que mer bi moo tax yàlla di def loolu waaw moom da daan expliquer nag mu ne man yàlla moom mu yónni si nit ñi waaw waaw moom kéemaan yu bari bari def na ko si senegal mm, moom moo tuubal président Bongo président Gabon moom moo ko tuubal def ko jullit waaw parce que moom Bongo dafa doon oo dana woon Sénégal ñu oo seetal ko eh, ki fa gën a foor léegi buñ ko indilee sëriñ bu ko wanee lu ko doy après moom mu tuub si moom léegi buñ ko jëlee yóbbu ko mu yónnee ko avion mu yóbbu ko Gabon mu wax ko moom eh, ba muy juddu morso biñ ko njëkk a laxas fi mu jaar ba nekk tey président Bongo sukk si wetam nekk bis ni ko tey yaa may tuubal Bongo demoon na ba jox ko numéro téléphone am téléphone duusam fépp fu mu nekk da jot direct du jaar si kenn parce que lim ko wanoon moo ko yéemoon waaw. bi mu bi ko Senghor yónnee Israël tamit noonu la demoon parce que Senghor dañ dañ doon seet dëkk yi ku nekk ban dëkk bu nekk. kan moo si ëpp xam-xam léegi bi nag seet Sénégal tànn ko si moom fekk dëkk bu ne dañuy tànn ki si ëpp xam ñu yónni ko biñ ko yónnee Israël léegi nag gaa yëpp ñu laaj ko en hébreu français xam nga boo amee xam-xam da ngay mën a wax làkk yëpp ñu laaj wax ko en français anglais seen ara seen làkk ñoom après mu tontu leen si lépp ci mu dernière question mu ne bii mu koy laajee yonent bi ba muy reñaan nan la defoon mu ne avant muy wax la ko yonent bi ne ko bul leen tontu jógal jàpp bi mu jàppoo nag la muftu yep ñi ko doon ko kon kii yonent moo ñëw waaw alaka kan dan kun ta ta yum ta ta yum je ya je ya kun go bil je je ba je ba bil ka ta ta mamad na ta go bil ka ta yum da kan yum ko ko ya bi mu alfon da mu da ne Hmm. moom nag da daan wax lu bari lii am si Sénégal mais si tali yi ñuy yaatal yëpp ay deuxième stade yeeg yooyu yëpp waxoon na ko mu ne parce que Sénégal dafa am lu muy lu fiy xewi ji loo xam ne dina ñëw dara du ko arrêté te bu ñëwee àddina bi yëpp a koy yëgandoo mu ne boo gisee réew yëpp bëgg Sénégal mu ne dafa am lu fi yàlla def loolu xam ne jamono bu ne tël àddina bi yëpp da ngay dégg ñuy avion yeeg ñëpp di daw si di ut si Sénégal mu ne bu boobaa nag si la ñuy xam doole yàlla

man mu ba mu yàgg mu ne ñëwaat. ma bari tu parce que booy xool si alxuraan yàlla dene Mahdi buy génn si suuf lay génne instant si kaw lay wàccee te moom dana man mission boobu la ma yàlla jox moo tax boo gisee yi may def nii mu mën ko mu ne li ma yàlla may la moo tax waaw moom da daan boo doon xalaat nii sax moom day xam li nga wax mom neena nak de bu deme nak ba adina bi yeb defe ne fàtte nañ mom mune buma bu nak ci le nit ñëpp di daw ci di di ma xool si nii waaw. waaw kon ñu ñaam mo be faale tout wog ma ribina bon na mo mo ribina ci la ko ko be ko bo na ko ci na bi ko ci ci mo ngi waaw mune lool nak nag bu dee yow gëmoko wala xamoko mune da ngay baye bu julli ba guddii nga julli ñaar rak nga la jall est ce que Modou Ngom limuy wax deug la nga yem foofu rek waxuma sax nga ne ay mooy nga ne yàlla ngay wax direct est-ce que Modou Ngom li ñuy wax si moom dëgg la waaw mu ne boo ko defee yàlla dina la wanal boppam waaw mu ne da ngay waaw loolu nag dañ ne woon faw ñu baaxee ko waa dëkk bi comme fi fii ñun fii la ñu bokk faw tamit ngeen xam ne moom loolu la woote woon loolu la waxoon ba àddina bi yëpp tey ñu ngi seede si li mu doon wax ba si dëkk arab yi ñi mu leen doon wax yëpp ñoom gis nañ ko tey moo tax yàlla nañ yàlla gën a jàppale fii moom suñu dëkk la moom te dinañ ko gën a yaatal dinañ gën a def ba affaire bi li leen nakari si dëkk bi yëpp bu ñu demee dinañ ko wax si gouvernement bi bu koy defee ñu ñaan yàlla jàppale leen parce que yàlla rek a mën a jàppale jàmm waaw yéen a ngay amee yàlla si boppam mooy jàppale te dinañ ñaan yàlla jàppale leen seen dëkk bi gën a yëkkati ko parce que dëkk bii moom dëkku sens la même boo fi dukkee ñëwee sax da xam ne dëkk bu baax la

ñaanal iya, iya, ñaanal iya. ñaanal waaw déet ñaanal di jox ancien chef chef de village mu wax tuuti moom tamit waaw min duga jan ala ye ko doolu jaabile ñëw nañ fii lu ñu ñaan fii ñoom gis nañ ala jaabi waaw hani bii de ala hani bii duwa a saa kafuñ ñe adi maram ñe hmm. hmm. eh ate <clears throat> mbiyan bi mbaay jàmm mbaay saama jàmm ren ñu ngi moom tey folo folo folo nen to ndala silo ñi a ko duwale alma la ñinal mona yon ki bi te hani bi atol mi funa atol mi funa atol mi funa to koma ali albarka lankan ali ma koy nimman satema ay jeede la ñi dole ko bebe ñi mbako la ñi mbako ñi ñaan fi rek ñun ñëb ko fofu rek ñun ñaan dulu ko bo yananga tan no marché fewlu sannan ko ɗum bo yana ngata ɓe jango kondom bar ni sama ni sama keta nokol ɓe ka arita mbulle faale feere ka alay bala e fañe alaye makoye woto silo ñinte ndara silo nden yon bi ha woɗen ngoko ko kumal ngo ko ɓaynde fof koddañol bi shangortilo fi bada bi shangor bo kodda balle amande dano hani bi ɗi naata yen jikindila mum mbafenga poti son ɗi naata a mbaɗo dalal nal wote tañe mbaɗo dalal mum nal fengarete mbaɗo dalal mum tata ode ha sanfunaɓe nan jeel lakkuwol kono de laɓe man ɗo kukan tolle ɓujeejan tolle en ɓankungan jay man ɗo kuki jande ñew li jëwul fii Antakunda kay ɗum kontireede warde ɗum han a kuu ka koyeral fnasi ma koye o duwato fof ala si ñaatiɗe mina anin lebitano lebitano neɗɗo kolo fana fele jan ya lo anin biiteme ma hana kaɗunoni kala so ɗo fama so kirinto kola ɓe laɗo ya so Ini, ara, ini arabu ye kolo. Ani arabu e eh, kolo. Arab arab. Solar wo kende kede. Wo kende ke bisola ni ah. turap turap turap turap turap amun moy ba ba sohna ni turap. Wo. Wa Besular Be solar kende kende kende kede arabu e eh, kolo. E arab. Masya Allah lonye. Wala ni dimbal. Wala do ya lonye. Karandi la sama ya du liggey. Be sohna ni de. Hmm. Ani mo fon lebe en profiter la kajo. Hmm, hmm, hmm. Bar be solar wo ma bak bak bak bak. Kan. Hmm. bi sembo ten tollade mhm. ah. nana am ñumoye loran sembo ten imman safna loñ ah. nde ñawña nal ɓe sembo lala woton bat nen ten dal silo dal kana ñina wala de ñe bulen fadde kiide yon bi mhm. moñ fadde ñina wala de min suñu aduna yeb ñi tonel moy yon bi ah. mhm. amadou kay ñu dege jori fanal le duwa fanal le duwa baali le duwa tan surtout ci lo fanal le duwa laali

jamano kane bondi fama bala no jama bi bulum bulum mhm. dem na ba pare parce mhm. que yéen kay yéen ci dégg bokkuma kabiri wo kumola min sata landi ki yaw ka fa mais mhm. jël ni bindil bàyyi nga foofu moom deewul bale abe balur na xane mu maliki na wala